ki mu ñor balla mbeng tey ba étage yi fekk ko fi lépp fekk ko fi bàjjen ñu ñëw fekk si Doudou Ndiaye mbeng fii ci kër gi defal ko émission ëttu kër ndaanaan yi lan nga ciy sànni. xanaa muy doom ju ma yëg du doom ju ma yërëm du doom ju ma bëgg bëgg lu ma neex lu ma ko teg mu tegoo ko ñaan na ko yàlla yokk may ko wér ak gudd fan yokk teraangaam ak ku ko yéene bàyyi naa ko yàlla nag ak rasul ak sëriñ Bamba ak barke baayam bi yaakaar yàlla ak rasul ak sëriñ Alaaji Malik yàlla na ko fi yàlloo ak i mbokkam ak i rakkam ak yëpp dara jël sol ak jabarum ju baax ji ci kër gi dem ci sama waa di bëgg lu ma neex yal na ko yàlla saxal ak moom ak mbooloom jut ak njabootam du njaay du ma ko xasida dama koy baag yàlla rek mu ngi man ci ato yi mu ngi man ci dépense bi di doon lu ma bëgg mu ne ci naa ko xas mu ne pat naa ko saaga mu ne ko xul ko neexul mu muñ ko di ci lu ma neex rek yal na yàlla daw ci lu neex ak ko yéene dara jëm Moustapha ak mokk mbooloo mu ko ñaar yéene dégg ngeen yaayu Doudou Ndiaye Mbengue li mu ko wax doom ju ma yërëm doom ju ma fonk doom ju ma safoo doom ju ma faale waaye doom ju ma yërëm doom joo xam ne lu ma neex laa koy teg mu tegoo ko te lekkul bàyyi ko loolu la yaayam njeng njaay mi toog di muñal ballanaar ba mu dem àjjana mu des fi toog di ko muñal lii la wax Doudou Ndiaye Mbengue mi ñu duppee Doudou Ndiaye Coumba Rose doomi ballanaar nee naa leen taalibe Cheikhul Khadim bi waaye xaritu président Macky la foofu la ñuy jóge nag wàcc ci suuf macha allah fekk fa Doudou Ndiaye Mbengue fas yéene galayaabe ak moom ci ëttu kër ndaanaan yi ubbi leen seeni bët nag te ubbi seeni nopp tey di ngeen gis lu ngeen mës gis ëttu kër ndaanaan yi la télé qui nous ressemble et nous ressemble télé bi ñuy ndur ba nopp duñu dajale nañ wàcc ci suuf. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àddina asalaamaaleykum waa diaspora bi asalaamaaleykum àddina wërngal këpp tey nag macha allah ñu ngi fii HLM ci ku yàlla baaxal du Njaay Mbeng macha allah tabaarakallah mu sama bàjjen Njeng Njaay macha allah mu balla naar Mbeng mu duudu Ndiaye Coumba Rose mu mag taalibe Cheikhul Khadim bi tubaar tubaarkàlla xaritu président Macky Sall macha allah ginnaaw bu ñu nuyoo àddina sant leen gërëm leen ñaan ci réew mi jàmm di leen wax ne nag macha allah ñu fekk si duudu Ndiaye Mbengue duudu nuyu naa la duudu Coumba Rose duudu Balla Naar duudu président Macky Sall duudu Serigne Touba nuyu naa la. loolu de loolu de neex na. ndeysaan. <laughs> waaw maa ngi lay fay. ndeysaan. Euh, gannaaw ba ma sante yàlla mhm. julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, di sant nag suma ñaari waay jur suma papa alaaji balanaar mbeng hmm. euh, bay maakuma mbeng mhm. bay amar sekk mbeng bay mhm. cheikh mbeng hmm. bay murkumba mbeng hmm. ah, maa ngi gërëm nag suma ndey ndeysaan ajaratu njengi njaay suma yaay ji nga xamee ni. Mm-hmm. macha allah tubar fakkal la. kër gii nga ma fekk ci tey. ndeysaan. këram moo ko moom. Mm. muy ndey ju baax. Mm. ñu koy ñaanal yàlla. yàlla guddal fanam. te wéral cëram te bàyyil ma ci kanam. amiin yaa rabbi ci barke Seexul Xaddim. ni ah, sama taawu yaay. Mm-hmm. Mour Kumba ah, di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam. amiin yaa te wéral ay cëram. di nuyu ki ci topp muy fan fandooy hmm. muy sama taawu yaay bu jigéen moom it yàlla guddal fanam. ndeysaan. di ci euh, tofle. Hmm. Ablaye Dieng Thiat. Hmm. ak Jàbba Mbeng suma rakk. yàlla guddal seen fan. min yaaka. seen cër. min yaaka yaa rabbi. yàlla bàyyi nu fi sunu ndey ji. ndeysaan ba ci kanam. Oh. di ñaanal yàlla fas sekk sama rakk ja yàlla na xippee àjjana yaayu yaram deer ak Maakumba. amiin yaa Maakumba sama jarbaat ba ca Amérique maa ngi koy nuyu yàlla na yàlla guddal fanam. amiin yaa rabbal yàlla bu yaakaaram tas. yàlla bu sunu yaakaar tas ci moom it ci barke Seexul Xaddim. amiin yaa rabbi fa mu ne yàlla na ko fa yàlla ak yonent bi ak liggéeyu ndeyam ak barke bàyyam wala. amiin waay yaa rabbi waay. di nuyu sama doom. Mm. sama xarit sëriñ fallu Mbengue. ak sa maa ngi koy nuyu bu baax. ndeysaan di nuyu Xadiloo. Mm. di nuyu Xaar Mbengue Taaw. ndeysaan di nuyu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul Mbengue mm. ma ca Italie di nuyu rakkam ji aas baaba mu ndaw di nuyu bébé fa di leen ñaanal yàlla fanu ne yàlla ne leen fa yàlla taxaw ci barke seexul xaddim yàlla guddal seen fan te wéral seen cër di nuyu Matar sama sët Matar Samb ak Bilal di leen ñaanal yàlla jàmm di nuyu Penda sama goro ak am satu sama goro samay doom sax laa wax du ñu samay goro. waaw waaw ndax euh, ki nga xamee ni. dafa jóge kër ndeyam. waaw waaw. bàyyi ko sëy si sa kër kooku mooy sa doom. dëgg la waaye Doudou. ñuy ay goro yu baax. dëgg la xale yoo xamee ni. Mm. bëgg lu dudul seen jëkkër. ndeysaan. di muy grand mor mu ndaw. daysaan mi nga xamee ni. Ah. mooy borom këru Penda. waaw waaye nag di leen ñaanal yàlla rek. yàlla leen yàlla bàyyi ak seen boroom kër yi. ndeysaan te yàlla yokk seen i xéewal. ndeysaan ci barke Seexul Xaddim. Pape macha allah. dégg nga li Doudou Ndiaye Mbengue nuyoo macha allah dégg nga li mu wax ginnaaw bañ sante yàlla Pape nuyu nañ la yow itam. nga ñu lay nuyu di la fay di la jox sa wàccuwaay mbay yow fi nga ma indi nii sama kër la kii du sama du sama mag sama papa la sama nijaay la lépp la ndax xam nga mbokk gawlo dafa doy waar mën nga mën naa doon sa nijaay ci sa yaay doon sa papa ci sa papa wala mu nekk leneen mooy kon moom cër yi mu am ci moom dafa bari ñu yàgg ànd nag wax dëgg yàlla fu mu jëm yóbbu ma lu muy def woo ma kon tey bu ñu amee émission këram ah tey du du yomb de kon du yomb de du yomb. macha allah tey du yomb la Pape Mbaye mu sunu bàyyi Ndiaga Mbaye wax ñu may duudu mu dugg macha allah nuyoo ci morso bu ko neex rek fu ngeen laal rek yéen ñaar macha allah ñu nuyoo ba pare. doo ko dugg ci waxtaan wi. balaa may maa ngi maa ngi nuyu sama doom Mouhamed Mbeng <laughs> Mouhamed Mbeng ak sëñ Cheikh bu Mbeng ndeysaan ndeysaan maa leen di ñaanal yàlla macha allah ak sama Mouhamed mu ndaw mi nga xam moom laa am barki waaye déggal waaw mu nga macha allah waaw di ñaanal amagul sax 15 jours amagul sax fukki fan yàlla na dund tam ndeeg bàyyi moom ak i magam ak i rakam yi amiin yaa ci barki Seexul Xadiim amiin waay amiin waaw bëgg yàlla jërëjëf <laughs> yow yow sama lépp nga noo bokk Siré Kumba Lawbe noo bokk Ablaye Daaro Mbaar Maxtaar Maajoor ma jëmma Yaasin daawul ma ci foo dugg baax na ndeysaan déggal li ñëwal <laughs> waaw waaw billaay Yaasin yaay Adama Njaay lay lay la président Macky Sall yaa dem ba biir géej nga jàpp say jën bu la neexee nga jaay Macky jën ñaari téeméer waaw waaw billaay président Macky Sall na booli naa taaj la booli naa taaj naa booli yax yoo yax lay lay la laay billaay gisalam penda maam penda mbayaan Sénégal man gan Sénégal mooy sunu gaal nanu joow te man ko fii ku fi ñëw te manoo joow yaa yàq réew meek billaay naa booli naa taag sire naa taag maki yàq yoo yàq lay lay la laay. barkalla macha allah gis ngeen Doudou Ndiaye Mbengue ku ko tudd tudd président Macky Sall mag ñi nii lañ daan def boo duggee ci dëkk mbaa nga dugg cim réew tubarkalla da ngay laaj ana kër géwél ya maa nga laaj ana kër gawlo yi macha allah tabaarakallaa ñu yóbbu la ca ñoom Macky Sall nag président ñu ngi lay nuyu bu baax di la sargal yow yàqu réew mi da nga koo defar kor Marème fay Sall nga ñëw ñime géwél yi bëgg géwél yi fonk géwél yi dégg nga li la Doudou Ndiaye wax Doudou ñu dugg nag sa digganteeg président Macky Sall chef de l'état foofu rek laay làmb ak président Macky Sall. ndeysaan. góoru ma dem fay sàll baayu Amadou Sall sama waaji sama waaji yàlla na fekk mu mat waay président yaa mat waay. waaw waaw. président na booli na taaj na booli yax yax lay lay la laayee. ndeysaan. bilaay danga baax. sa ay gi neex na. ndeysaan. waaw ayam gi neex na nag. ayam gi neex na. dudu sàll lam toora bu mu sañoon du jeex. waaye déedéet yàlla waaw. la nguuram dul jeex. la nguuram dul jeex. nit ku baax. nit ku baax waaw nit ku oyof. Mhm. nit ku am yëg ci man. Mhm. moom ak soxnaam. dëgg la. ah yal na yàlla guddal fanam rek. sa secret seen ànd. lu leen boole ba yaa ko njëkk di ko président de la république seen commencement nag laay indi. Euh, président Macky Sall maa ngi ko xam 2008. 2008. waaw. ah. 2008 laa ko xam mille 2007 sax 2008. 2007 2008. waaw ndax dama jóge itali waaw doon def sama benn soirée. Sorano. Mhm. Euh, tuddee ko. boobu mooy premier ministre. yàlla mi dara tëwul. Mhm. bi ma ko tuddee ñëwul mais fekk ko fi woon fekk Ablaye Wade yónni woon ko mission. Mhm. bi mu ñëwee waa primature woo ma mm-hmm. ne ma du njaay mbeng mm. ma ni waaw ñu ni ma waa moo la soxla mm-hmm. boobu sax minante wu moom lool mm-hmm. dama ko tuddee rek en tant que yàlla mi dara ma dem wuy primature ci temps boobu dëgg la mu yëkkati un million jox ma hmm? barke Seexul Xaddim ma allah. boobu man immigré laa woon Italie laa nekkoon. Mm. dama ñëw rek ma ne comme gëj naa. Sénégal Sénégal xaaral ma def benn soir anniversaire Sorano. Mm-hmm. yàlla def Sorano fees dell. Mm-hmm. ndax nit ñi dañ mën a mën. ndeysaan. tabaski jot. Mm. ma ànd ak sama benn xarit bu ñuy wax Buuna Mbaay. Mm-hmm. daal ni xaaral ma dem ziare ji premier ministre remercier waale ko ndax ban may jox xaalis bi. Euh, aide de bi moom ma ko jox. ndeysaan. te gisante wuñu maa ngi moom. yàlla mi dara bi ma demee këram. Mm-hmm. maa ngi fa laa fekk Bekay Mbay mel na sama nijaay Serigne Abdourahmane Fall kii laa koy nuyu de yàlla mi dara mm-hmm. première daam jabaram ju baax jooju. ndeysaan bi muy yërndoo gis ma ma taxaw ci bunt bi mu ni garde bi bàyyi leen ko mu dugg. ci laa ñëw ànd ak Bekay Mbay ak Serif Abdourahmane Fall kii laa la. ndeysaan. président doon am ñu mu doon recevoir ci saalam. dëgg la boobu mi ngi dëkk botu ambassade Italie. Italie waaw. ci corniche bi noonu waaw non ca ca biir Dakar. ca biir Dakar d'accord. yàlla mi dara tëbul. Mhm. bi mu déggee ni man man maa ngi ci kaas euh, bi toog. Mhm. mu génn ci biti. moom président moom président daal may nuyu ni ma duudu. kontaan naa ci sa ñëw xaaral ma recevoir. Mbaye Ndiaye la doon recevoir ak ñaari soxna Mbaye Ndiaye boobu Mbaye Ndiaye mooy monsieur le maire. parcelle bu Parcelles yàlla mi dara bi mu paree. Mhm. mu daal di may recevoir ak jabaram ju baax ji Marème Faye Sall. ndeysaan daal ni mu duudu man yow rek laa mos sa bëgg sama at. Oh. ma ne ko ah bon min mu waaw ma ne ko ah, man man dama ñëw pour remercier la. ci lu baax li ngay jëfanteeg man. Mm-hmm. te xamante wu mm-hmm. ñu. ma nag à partir de maintenant. Mm-hmm. na nga xam ni daal sa waay la ah man it ma jàpp ko mu jàpp ma. dëgg la nu jàppante. dëgg la Njaay. nuy dox di dox di dox di dox ba ma dégg nu koy andil problème. Mm. nu dañ koy waaj a dàq ci premier ministre beek. ma daal di dem këram. Doudou yaa ngi nettali histoire bu am solo. ba ma demee këram maa ngi fa fekk. Mhm. Euh, gardien ma ne ko man de président lay set ñun ma dugal nga toog ñu xaar ko ma ñëw fekk mu ngi sol benn chemise nii. Mhm. mu toog recevoir ma toog ñu waxtaan. ndeysaan. Ah, man ko am li may dégg nag min ma ah yàlla baax na. ndeysaan l'essentiel que daal na xam ne sama waay nga. dëgg la fu mu dem rek. ba ni mu ko dàqee premier ministre. waaw yóbbu ko président assemblée. Mm-hmm. ma ànd ak moom. ngeen ànd yéen ñaar. ñu toog ba ci yàgg. Mm. mu ni dañ koy dañ koy dàq assemblée nationale. ndeysaan. dañ koy génnee kër googu ma ko fekkoon. ndeysaan. mu daal di démissionné. ndeysaan avant boobu. Mm-hmm. yaayam dafa gaañu. wallaay ndeysaan. ma ne xaaral ma dem Fatick. mi ngi bi waaw xaaral ma dem Fatick Fatick jaale ji ko. yàlla mi dara bi ma demee Fatick. Mm-hmm. di ko jaale. géwél yëpp ngi taxaw. xoolal loolu. mu ma du Njaay Mbeng il faut nga jël parole. ma ni wëy. kan Macky Sall ci saas yi Macky Sall mii de ndekke ndekke teg na ma ci place xam nga ñun ay gawlo la waaw waaw bëgg ku ñu yëg yàlla mi dara tëwul ma jël parole tekki mhm. na boobu mhm. euh, Farba Senghor dëgg xale yi Fatick mhm. ñu ngi mer yor ay xeer ni bu génnee dinañ ko sànni ay xeer ndax moom li dàq lu makki Sall ci nguur gi ci la bokk. laa ilaaha illallah. Macky Sall ni ma wax leen. ñu mhm. leen gan gu fi ñëw. Mhm. nan ko gunge. Mhm. nan ko teral. waaye bu ko kenn bu ko kenn andil benn problème. ndeysaan ma daal di jël micro bi wax lu baax. waaw waaw. ne ma nag bu ba di dem gunge ko far farba Senghor. ma génn gunge ko ba ci otoom. wallaay ba mu dugg ba dem. ma wàññeeku si. dëgg ma ma anamu man ko dem na ci jàmm. ci laa jàppanteeg moom nag. fu muy dem yóbbu ma. lu mu am commencé nag di muy campagne campagne bu ndaw di dugg ci kër yeeg mm. yooyu. lu muy def rek wax ma ba caag ma toog ba man ma ni man kii ni may ànd ak moom campagne xaaral ma xalaatal ko morso. laay laay li laa. muy 2009. 2009. fekk na mu bàyyi. waaw ma dugg studio. génne Sénégal jóg leen yëngu. waaw da nga ciy yëngu ñëw. waaw <laughs> loolu la quoi yàlla def. da nga ciy ñëw da nga ciy ñëw tubaarkàlla ndax. ndax ëttu ndaanaan yi. tey dafa fekk si ndaanaan bu mag bu mel ni du Njaay Mbeng te du Njaay macha allah ndaanaan nga ku di far de leen tubaarkàlla macha allah mën a woy di gawlo may sa Njaay gawlo di sa maam kon boo woyee les président di mépp dégg ko duñ la may foofu rek doxalal ak ñun ci président waaw waaw billaay Sénégal jóg leen yëngu Macky am na ndam Sénégal jóguleen taxaw. Macky am na ndam Macky Sall mu Adja Kumba ci mbokk. bu ko neexee la mbéeg. waaw am na ndam. olof yee jóguleen yëngu. Macky am na njaago yeeg joolaay jóguleen taxaw. Macky am na ndam Macky Sall mu ajaa kumba bu ko neexee lépp mbeek góoru merem fay moo goreek ndeysaan Sénégal déglu leet nag président Macky Sall ajaa kumba ci mboo la ñuy yaayam Amadou la ñuy baayam góoru première dame Marème Faye Sall billaay olof yee jóg leen taaxaw maaki am na ndam njaago yeeg joolaay jóg leen yëngu maki am na ndam maki sàllmu ajaa kumba ci mbëg bu ko neexee lëb meek ndeysaan góoru marem fay moo goreek maki sàllmu ajaa kumba ci mbëg bu ko neexee lëb meek maki ci mbëg bu ko neexee lëmbe waaw xam lu tax wax bu ko neexee lëmbe ndeysaan dafa am période bu nu tolloon. dëgg la ñu koy tuumaal ba yóbbu ko central. Hmm. boobu président Abdoulaye Wade moo fi ne. ndeysaan ñu ne ko war a tëj. yàlla mi dara tëwul Moustapha Cissé Lo mi yàlla na yàlla guddal fanam. amiin yaaka yaa rabbi. Siré Khoudia Koumba. ndeysaan gaynde Khoudia Koumba nit ku gore. dëgg la Moustapha Cissé Lo. Hmm. nit ku bëgg président Macky Sall. Hmm. Moustapha Cissé Lo. nit koo xamee ni. fu président Macky Sall. yegg. Mm-hmm. joué na ci rôle bu mag mm-hmm. may nuyu nag ñaari doomam yooyu mm-hmm. doomam yu baax yooyu nga xame ni fu ma fekk rek jox ma cër ndax seen baay dëgg la waay may ñaanal yàlla aussi euh, Farba Ngom ndeysaan suma frère suma xarit suma goro yàlla guddal fanam moom te yàlla bàyyi ko président Macky Sall nit ku fidèle Farba Ngom dafa fidèle wallaay wallaay digganteem ak président de république lu ci am yàlla nay wërsëgam xam tax actuellement nii ñu bari ni ngi wane seen jikko waaye far ba fa mu nekkoon rek la ne barke alxuraan bëgg président gore wét gore wétali ko gore ngoy loolu ñu ko mën bariwul bariwul bariwul man waxuma pour neexal Farba déedéet déedéet li may am far Farba joxuma ko la mais dama lay waatal ci yonent bi mm-hmm. nit ku gore ngi noonu nit ku bëgg président Macky Sall moom leen intéressé wu ko lu du président de la république mm-hmm. yàlla na yàlla guddal fanam dëgg la comme ma koy nuyu nag di nuyu do jabaram ju baax jooju ñaari jabaram yépp nag wallaay waaw di ko ñaanal yàlla yàlla gën koo di taxal digganteem ak président de la république mm-hmm. man nag loolu dal far ba moo ma dal dëgg la nga man mm. dina ma jaral fu mu ne damay jël sama vol fekk ko fa dëgg la seeti ko parce que sama digganteeg moom dem na ba doom am na ci ba ma jël doom tuddee ko mm-hmm. président Macky Sall maa ngi koy gërëm di ko sant ndeysaan di ko ñaanal yàlla yàlla gën a guddal fanam. amiin yaaka sàlla lam toor te wéral ay cëram. amiin yaaka yaa rabbi. Doudou. ngoy foofu nga nga nga nga bàyyee rek. fi laay ñëw ak yow. ni la président macha allah. loo koy ñaanal. waaw mais ngoy nag boo seetee au fond. président mhm. Macky Sall fi mu demee. Mhm. Euh, doyalunu. man da doyalu ma walaay man mii waaw doyalu ma nag wax dëgg yàlla waaye nag nguuru yàlla rek moo dul jeex dëgg la kenn doyalul ci moom kenn waxtaan wax dëgg ci la président Macky Sall bu demee bàyyiwu fi gàcce dam la fi bàyyi walaay dëgg la barke Seexul Xaddim dëgg la dafa fekken nag euh, lu jot yomb mm-hmm. li ñuy ñaan rek mooy sunu dëkk bi yàlla na nu yàlla defal jàmm ñun ñëpp. amiin Dodo amiin waay. parce que ñun ñëpp nag noo bokk Sénégal muy waa Sonko. Mm-hmm. waa euh, euh, euh, kii xalifa Sall. Mm-hmm. ak yeneen opposition yi. ak ak ak waa APR. dëgg la ñun ñëpp ñun ñëpp benn dëgg la noo bokk senegal senegal benn bopp la kenn mën koo xar ñaar. Mm-hmm. ñetti président yi fi jaar yëpp. meluñu ni moom dañoo waxtaan rek ku ci ne def nga nag. waaye dëgg la waay waaye kenn du président Macky Sall. ci yar. dëgg la ci sutura dëgg la ci teggin ci ngor mhm. ci fulla mhm. ci fayda mhm. kooku kenn du moom dëgg la waaye waaw ni nga koy ñaanal nag ni ko kër tiijaan yi ñaanalee sama mbokk murid yi di ko ko ñaanalee laayeen yi di ko ko ñaanalee ñeseen yi di ko ko ñaanalee képp kuy nitu yàlla mag ndaw góor ak jigéen yaa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam ci barkeb seexul xaddim amiin yaa rabbal aalamiin man daal ngoy metti na nag metti na ku sañoon euh, sa waay fa mu ne du fa jóge wallaay dëgg la moos waaye nag nii mu def rek la. waaw gor la. Mm-hmm. te it am na kaddu. dëgg la. waaye man bu ma sañoon man duñ jaay mbeng. wallaay. billaahi yàlla bàyyi ma doxal ba ca kanam dëgg la waaye nag moom day sànn. Mm-hmm. day seet li nga li nga xame ne moom moo nar a andi coow mu bàyyi ko fi. Mm-hmm. fay ko ba mu fay. ba ñëpp nekk ci jàmm. stable mu soog a dem. xam nga ni kii moo gore day fekk li waral coow mu fay ko ba mu fay ba ñëpp ne ci jàmm mu doog a dem loolu la Doudou Ndiaye Mbengue wax directrice su 7TV Maimouna Ndour Faye sama jigéen le premier mars ñu agressé ko tour deretam ngay góor lan la sa yaram yëg ak looy wax foofu euh, dem naa sax rajo ba hmm. keroog mais nit ñi dañu bari télé ba dëgg la dem naa fa mais nit ñi bari lool dëgg la man ak sama soxna noo àndoon ndeysaan mais yàlla bi dara après bi ma gisee nit ñi bari lool après ci laa demaat. waaw ndax moom nag may mën a nduur. Mhm. fay dafay sama jigéen. dëgg la li may wax ni moom xam na ci dara. dëgg rajo bi tegal tale bi. artistes yi fa njëkk a wax ci laa bokk. dëgg la muy xale bu baax. Mhm. may dajeek moom ci milieu yi mu sol pantalon jiinam. dëgg la di daw rek. da live. di daw rek. wallaay dëgg la Doudou. lu mu daw. Mhm. andil ko njabootam. dëgg la njaboot gi mooy kan. mooy yéen ñi fay ñun ñii ñu ngi nii. barke Seexul wallaay laazim. cat nag du wees. Mm-hmm. waaye ni nga koy ñaanal yàlla rek jigéen ju mën góor la. dëgg la. xam nga may mën a may mën a ndur fekk kan laa koy xoolee. Mm. barak wàlla mbóoj yal na yàlla guddal fanam. amiin yaa may mën a day jóg ku mel ni moom it. Mm-hmm. na bàyyi xel ci bu baax li ñuy def may mun a parce que sénégalais yi. léegi aussi mm-hmm. ñun toll nañu foo xamee ni. mënutoo comprendre. doy na waar daal mbay. benn jigéen la. boo xamee ni moom moo fi am télévision. maa la wax lii. jël ci ay ñaata personne ay borom kër nuyu daan seen maa la wax lii pour ku ci ne loo am yóbbul sa njaboot sa njaboot donc nañ ko jàppale rek mhm. te ki def loolu yàlla na ko yàlla weer mhm. feeñal ko ba ñëpp teg ko bët. Mhm. te barke Serigne Bamba. Mhm. dinañ ko jàpp. dëgg ndax autorité yëpp wax nañ ci. dëgg la président la république. dëgg la li nga dégg dégg ko lim ci def. wallaay discours am dëgg la incha allah bu ci mhm. dina jóg ci jàmm dina delluwaat ci liggéeyam. te incha allah rabbi lii promotion sax la koy defal. dëgg la bi. waxoon naa ko ko. la 7TV la 7 day dem waaye du du taxaw mu. ci kàttan yàlla la 7TV day dem waaye du taxaw moom la Doudou Ndiaye Mbengue wax bu njeng Ndiaye. bu Balla Naar Mbeng bu Duudu Njaay Kumba Rose waaye bu président Macky waaye bu Cheikh Ahmadul Bamba Xaadimu Rasuul moom dong laa tey moom la ñu ñëw fekk si ko fii HLM Serigne Touba rek kër yaayam muy doom ju fonk yaayam Duudu Njaay am na kër waaye fii mooy kër Balla Naar ah, na kër waaye fii mooy kër Njeng Duudu Njaay am na kër waaye fii la Faat Ndooy taaw ne ñu ne ko dañuy ñëw defal la ëttu ndaanaan man leen kër yaay mu ne kër yaayam la ñuy ñëw lan ngay wax sa yaay looy wax faatu Ndoye sa taaw yaay bi nga way woy wërëy wi yaay yaay ju baax ndeysaan birat maa ne njëng soolak sa ñaan yaay daf may ramook yaay yaay ju baax njëng faat saala si ga sa maam yaay booy bul sa ngeem look waaw waaw yaay baax birat maa ne njàng sa ñaan yaay dafa may ramook waaw waaw billaay njàng salak may sa njaay gaw la mooy sa bul sa ngeem loog waaye daw yaram mu dugg ci xol njëng faat saara si nga jeey maar ko biran njaay ma njaay jamaak ma njaay mi ci tuube xaar yàlla biran njaay yaay dundal yaayu moor kumba mbeng taaw yaayu fat ndooy fa jigéel yaayu fa sekk ak yaayu saala mbaay yaayu duuti njaay ndeysaan yaayu Ablaye Jëng caat njëng fat sala si géej sama baay balla mbeng moo la gërëm maamu Seydina Muhammad ñetti yoon ndeysaan yaa doy loo Seydina Mohamed ba loo togg joxe ko addi yeey Seydina Mohamed njëng fat sala si géej maa ko fekke ca Makka mbokkum ndeyam maam Awa Ndiaye. mbokkum ndeyam yaay Jabaay Ndiaye yaayu Ayda Diop. mbokkum ndeyam Boubacar Ndiaye. mi nuy jooy ton noppee gunu mbokkum ndey Mari Ndiaye gawlo mi nuy jooy noppee gunu caar. mbokkum ndeyam bu Jabaay Ndiaye. mbokkum ndeyam Ablaye Ndiaye ma nuy jooy noppee gunu yaay booy dundal ba mu yàgg samay di baawaan. billaay ngeen ngi jàpp salaat muy sa yaay taaw ci kër gi mm. njëkk a juddu njëkk baax yaay booy newoo say rakk si rakumba law beek bu ba Kumba Law Beek Abdoulaye Daara Mbaar Makhtar Daara Mbaar maa jor ma jëmma Yaasin daawul ma calloo dog njàppe Fatim Bor Sobbu Kaar tey laay wayal sama yaay. ndeysaan. way ku ko dégg rek. ndeysaan. way sa yaay mel ni ni way nga sa yaay may. naa la ndeysaan ndeysaan kon Cheikh way na yaayam. papa jo boy na yaayam jàbb salaak <laughs> yaayu fa sekk ak faatu ndooy yaay boy bul sa ngeem loog ndeysaan ngoy waaw kooku mooy yaay ju baax wallaay dëgg la yàlla na gudd fan dun sama yaram dafa daw ndeysaan xam naa loolu <laughs> dama kontaan yaay ju baax ngoog waaw yaay ju baax ngi noonu macha allah may xaar ataay ji nag macha allah ataay ji ñu ngi koy xaar waaw ataay ji na gaaw Dudu Njaay waaw ñu ñëw nag macha allah ak yow ci luy gawlo dudu luy gawlo gawlo waaw mooy lan gawlo ngi nii macha allah gawlo mooy géwél buy xalam di way mhm. comme jaga mbay mhm. comme bëgg yàlla mii toog ndeysaan comme du njaay mbeng mii toog ndeysaan ku ne xam na ni fii gawlo yi mhm. ñoo daan sëy seen biir gawlo kenn daawu ko rax gawlo rek moo amul dëmm laay laay barke Seexul gawlo rek moo amul waxteef dëgg la ndax lan daawuñu rax seen biir ñoom gawlo ak gawlo rek a doon sëy ndax noblesse bi ne ci gawlo ñun sunu maam Kumba Fuuta moo àndoon nag maam Cheikh Omar Fuuti ba léegi dellu sigul laay laay li laa garab boobu ngay dégg waaw maam Kumba Fuuta moo àndoon nag maam Cheikh Omar Fuuti yu hmm. ñun ay garmi lañu macha allah maam Cheikh maam maam sama maam Kumba Fuuta bi mu demee waaw ànd ak maam Cheikh Omar Fuuti yu bi mu nekkoo duma wàññeeku lan la ni ko ma ni duma wàññeeku la ilaha illallah leer na ma ni fa cheikh ne hmm. maam ma Omar Fouti sama maama nga fa boo demee wër fa ko ma waaw boo demee rek fekk fa ko ma fuuta <laughs> xam nga eh, ñun gaw la dañu am ngor boo gisee nit ñi naan du njaay mbeng du njaay mbeng mhm. man ngor rek laay ànd ak nit dëgg la waaye akamaam ful la ngoy dëgg la gis nga ku ma cof hmm. dootoo ma cofaat dootoo ma gisaat déedéet foo xam jëm fa la man fexe naa ba balla naar mbeng hmm. gërëm na ma sama baay dëgg la ñaanal na ma nee na ma pee ngay daw ngoy ah. tubaar fakal la ndeysaan macha allah bala naar meng nee na ma pee ngay daw sama yaay ni ma bal naa la aqu nampal waaye dëggal lii barke seexul xaddim boo yéegoon léegi ci kaw mu dëggal baat boobu sa mbàjjan yeng yal na fi yàgg yal na fi yàgg yal na fi yàgg sama soxna si nga xamee ne moom laa ko andil fii ndeysaan mu koy wéttali di la ko toppatool waaw di ko toppatoo bu baax yal na ko yàlla bàyyi ak moom Amadou man jam saame la ilaha illallah mooy li ma la wax xam nga ama Amadou Ndele manu jëm saam. Mm. yow yaa ngi ñëw ci maamu Youssou Ndour direct nag. waaw ak yow. ak sama maam ak kii toog. waaw ak Kumba Gawlo. waaw ak Ousseyn Ndiaye. Hmm. ak euh, Gawlo yëpp rek. ndeysaan xam nga Gawlo dafa yaatu. waaw ñun doon am benn association boo xamee ni. nu hmm. ko tuddee ëttu Gawlo yi. Hmm. defe naa ni incha allah bu ci yàlla andee sunu président dina la invité. incha allah nga ñëw mu wax la tojal la bu baax kooku. Euh, kooko xam luy gablu. kooko fexeel après mu ñëw set TV. incha allah ñu jàkkaarloo mi may dégg xam naa ne bu ci àll andee. waaw waaw dinaa fexe ba nga ba nga invité ko mu wax mu tojol la yàq mu baax ci gawlo. Mhm. xam ni gawlo noblesse la ba pare. Mhm. xanaa xamoo gawlo du ànd ak kuy ñàkk. déedéet. barke Seexul Xaddim li may wax nii bëgg yàlla mii. xam na ci dara. ndeysaan gawlo ku mu àndal. Mhm. boo doon diis. ren ba déwén ngay teral xolu gawlo. fonk ko jox ko cëram. Mm. loo am bokk ak moom. Mm. di nga dem ba deux cent wala trois cent wala cinq cent wala mille loolu yàlla gawlo la ko defal. ku yàlla defal loolu gawlo nag. waaye ay boo fontoo gawlo. waaw. ba gawlo ni la fi ñukk. waaw. di nga wëriwaat gawlo doo ko teg bët de. <laughs> Doudou Ndiaye. waaw di nga wëriwaat gawlo doo ko gis. diggante Doudou Ndiaye Mbengue ak Serigne Fallou. la ilaha illallah. Bamba laay laay faal. ilala ilala yaaram faal faal lay laaxa jébaloo wóor lay laaxa jaarama kii di Sëriñ Tuuba Mbàkke borom nit ëllëg bilay sababu leen soxna maam ñi jaara bu kii moonu may lu tax nu samp daaray Mbàkke murit yi déglu leeg ma tey laay wuy daam dellooti wuy maam Cheikh Ibrahima Fall mi taali daara Mbàkke bu ma sa ñoon suma waxtaan du weesu Tuubaa sëriñ Fallu Mbàkke kii mooy fal faleek te ku ko neex mu daa di lay fal ngay faleek sëriñ Fallu Mbàkke du xotti saati du tas yaakaar te du daw ku ko laaj ku ko laaj mu jox la lu géejal sëriñ Fallu Mbàkke wàlli wulak laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah alaaji Fallu Mbàkke baax bap ma woon la su ne am mu daldi am su ne du am dootu fi am alaaji Fallu Mbàkke baax bap ma woon la su ne mu taw mu daldi taw su ne taw Mbàkke dootu fi taw alaaji Fallu Mbàkke baax. Bamba woon tubarkalla kii nga ma laaj. waaw. kii tax nu xam ma. man sëñ Cheikh bu Mbàkke. bu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. Mm-hmm. mooy sama sëriñ ci moom laa jébbul. Mm-hmm. bàyyi sëñ jiili caat. Mm-hmm. waaye sëriñ Fallu. bala ay sa buri sëñ Mbàkke maaramam as sa wàll mi ci naawel daf maa defalal lu mag. lu ma kenn defatul damaa nekk Italie di immigré sëñ Fallou yee ma 3 heures ma matin li ma dunjaay wool ma Mor Ngom barke Seexul Xaddim ma woo moor moor a ngi Torino man maa nga napp maa nga Brescia ci gént gi mi ne dama leen di yónni ngeen demal ma marché leen samay taalibe ñoo nga fa ngeen joxal ma leen ñeenti téeméer yi ñu togg ci lu mu lekk moom sëñ Fallou maa ko wax ci gént gi barke Seexul Xaddim du ma ko fen mukk ñu ni ma boo leen yeggee bàyyil moor mu joxe ñeenti téeméer yi boo leen paree ngeen wàññeeku si ngeen ñëw fi fekkaat ma fii ma toog boobu sëñ Fallou ci gént gi ma nga ras mission biir Medina nu dem gis mbooloo mi mu mel ni stade Demba Diop bu tas ci ñeenti téeméer bi nu yóbbee ni leen sëñ Fallou moo nu yónni nee na nu jox leen ñeenti téeméer yi pour ngeen toggal ci lu nit ñi xéewloo ñoom ñëpp dañu xam ñii daanu di yuuxu ndeke ñeenti téeméer ci jaayir man ni ma ko gisee dafa mel ni ñeenti million ci temps boobu ma yëkkati ñeenti euh, moo ngoom yëkkati ñeenti téeméer yi jox leen lu daal di wàññeeku su ñëw fekk mu toog mi ni waaw yéen Mor Ngom mi ni ko Mbàkke mi ko yàgg du Njaay Mbeng mii ba ngeen fa demee nun nañ ña def ñu ni ko ah, nit ñi de Mbàkke bi leen ne yaa nu yónni ñoom ñëpp dañu xëm te fekkoon na leen nu xiif lool Mbàkke waaye ñeenti téeméer ya togg nañ ca ba mu des mi ni lan ngeen nam ci yónnee bii mu ma leen yónni ma ni ko ah Mor Ngom ni ko Mbàkke man de moo njëkk a wax ni ko Mbàkke man leen rek laa bëgg a doon taalibe lépp ci gént gi barke seexul xaddim mi ni ko taalibe ah Mor loolu nga wax jafe na lool de waaye yomb na ma man sëñ Fallu bés di ki tey def naa la nga doon taalibe Sëriñ Tuubaa waaye nag fu ma tuddee rek man sëñ Fallu na nga génne haddiye nga joxe laa ilaaha illallaah boo ma bëggee gis nag mu mm. gaaw mm. neel barke Cheikh Mouhamadou Fadal barki Cheikh Mamadou Fadal nee na balaa muy ñett man sëñ Fallou may teew ni ma du Ndiaye Mbeg yow loo bëgg ci li ma lay yónnee woon nii ba sama xol bi sedd wax ma loo bëgg ma defal la ko man ko Mbàkke man de leen rek laa bëgg. min ma muy lan man ko yow de damaa dégg ni yow da wax mu yàlla may ma min ma dee déedéet. Mm-hmm. man lu ma bëgg yàlla ñu dil ma ko balaa may wax sax yàlla jox ma ko man ko loolu laa bëgg dama bëgg defal ma xaas boobu. laay min ma bés naa la ko <coughs> mi ni ma. laay laay de la billaahi wallaahi. Mm. taalaahi du njaay dañ man ko am min ma loo soxla rek xool ko rek bul bul xalaat lu ñaaw nag parce que loo xalaat lu ñaaw sax day ñëw. subhanallah. barke Cheikh Mat Bamba lii la ma sëñ Fallou defal lu ma la ñaanal ci kattanu yàlla ndax ngoy nag ni ngi may gis nii. Mm. ngoy ngoy ngay du ma du ma foo nag. déedéet. barke borom tuur wallaay dëgg la du ma tiim ku sama soxla wallaay dëgg la du ma tux cigarette. ndeysaan du ma naan sangara. Mm. te waxtu yàlla du ma raw it barke Cheikhul Khadim. oh. bi weeru koor gi ñëw laa arrêté sama koor man atum lëmm laay wor ci kattanu yàlla dama koy def addiya yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat sama borom mhm. bu baax ci li ma yàlla booleeg Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul ak doomam ju baax gii ak sëñ sëñ bu sama sëriñ oh. lii la ma sëñ Fallou def moo tax ku ma àndal man nga jël mhm. pee yàlla defal na ma ko de xaas lay doon Mor Ngom nag nu toog ba ci yàgg ma fàtte loolu nuy ànd maag président Macky Sall nit ñi naan du njaay mbég day xaru du njaay mbég day nangam Mor Ngom ni ma du man ko naan mi ni ma fàtte nga la la sëñ Fall waxoon ca gént ka man ko Mor wax nga dëgg de min ma koo àndal mu gañee ma ànd ak sëñ Sall mu ma ma ànd ak Macky Sall mu gañee laa ilaaha ma way ko ñetti at ñetti weer bu soo ko nekk président de la république dëgg la dama lay waatal ci yonent bi hmm, sallallahu alayhi wa sallam bu nu yàlla mayee fekkee tal ak mën hmm. bu nu guddee fan tuuti ba ñu bëri dinañ xam kan mooy Doudou Ndiaye Mbengue bu ñu demee ba ci kanam ñu dund tuuti ñu bëri dinañ xam kuy Doudou Ndiaye mbeng loolu la Doudou Ndiaye mbeng wax Doudou mu Balla Naar waaye Doudou mu Doudou Ndiaye Rose ba tey Doudou mu sëriñ Fallou Doudou mu président Macky sàll Pape dama bëgg nga doxal tuuti tubaarkàlla nga doxal tuuti nga dox <laughs> ndeysaan waaw dañuy waxtaan rek te yàlla tax xam nga dafa am wax boo xamante ne boo ko déggee da ngay xam ne amaana dafa jaar ci gémmiñ waaye gémmiñ waxul fa kàddu yoo xamante ne bi làmmiñ ñoo koy génne nag mm. pour nit mën ko dégg pour xam lañuy wax lan la mais dafa am wax yoo xamante ne bi jógewul ci làmmiñ ci xol lay jóge amaana ndax këntu kënzan max fiyan nekkoon naa lu kenn xamul waaye lam uxur fa bi ma ne demee ñu xam ma damaa tajjal yàlla tajariyaat boobu moo fi indi ku ne ndax sëñ Fallou yaakaar naa ne loolu ko yàlla defal jubóog boromam ko ko may. léegi nag jaam bu yàlla gërëm. fa la yàlla di jaar ba su bëggee wax. jël làmmiñam bu bëggee dox jël ay tànkam. bu bëggee jàpp jël ay loxoom. kon sëriñ Fallou dafa jubóowoon ak boromam ba lépp lu mu bëgg wax da koy jaar ci làmmiñam. wala mu jaar ko ci ay tànkam wala mu jaar ko ci am xelam. kon bu yàlla defee loolu am digganteem ak sëriñ Fallou moom Doudou Ndiaye dañuy am yaakaar ci ne loolu mu wax de man am na lu ma jot am na lu ma jot lu ma ci yàlla yoor ci ne xam naa ne Doudou jaay mii ci kanam tuuti dana bàyyi woy ci kanam ci kanam tuuti lu ma yàlla yoor a ngi noonu. tàmbali naa ko sax ci kanam tuuti dina bàyyi woy. barke Seexul Xadim amatuma sax jot bi mi ngi noonu ak yeneen yoo xamante ne bi yu ñu mën a wax. <laughs> comprendo li italien di wax comprendo man comprendre ma dara tubaarkalla italiano moo naan noo kapasi ñeente loolu laay wax parce que tubaarkalla Dudu Njaay aalu na ngir jëmmi Sëriñ Fallu Pam Mbay mii aalu na mu sunu mbaay Njaga Mbay ñoom ñaar kon waxatuñ ci zaahir ñu ngi wax ci baatin te man jigéen laa tubaar tubaarkalla xaj na yéeguma ñoom ci level bi ñuy yéeg waaye daal xam naa ni bu ma sañoon nga may Dudu Njaay dara ci sama papa Njaga muy lu neex loo ah na ñëw nga yaabe rek. waa acca demal tubaarkàlla waaw waaw ndeysaan aduna ko belel jeeri duniya ko yow ma yow ma ànda kaganda far yoo ñaalu gi naa ko daangeel dëgg la mbay ndeysaan jàmbar léegi léegi joni joni jambare jambaɗotnama wolo wayi sëriñ fallo ñaanal ñoo mbake balay ñaanal ñoo jógee naa ko doon. njëgaay sa baay. ma nga àjjana. Abdoulaye Daara Mbaar. Maxtaar ak Jaara Daara ma mm. jëma yaasin daawul ma ca loo njaga ma nga ca àjjana. Siré Kumba Lawbe Buuba Kumba Lawbe tey laa lay wax lan laa bokk ak yow. ndeysaan. billaay yu maag yow maag at ndaa ka nga ndaa. jàmba léegi seeni joni jambar jambare alaaji Dudu Njaayo Dudu Njaay Roos lañ waaw waaw dëgg la ndeysaan xaw ma yow de la jàmm daal nga yendoo léegi cey joni joni jàmbaaroo jàmbaar aare Abdoulaye Daaro Mbaar ak joor Daaro ak jaara Daaro ma jëme yaa si dawul te fatin borso bukaar doroobeek waaw yiw maak yow maak mm, atlaak ko gandaak tubaarkàlla masha allah waaw ah ngoy ngoy faali waaw xam nga dañuy wax ne ku xam sa bopp xam sa borom waaye nag ku xas xam sa borom sa bopp réer la ba tax na eh, fexee doon jàmbu yàlla gërëm dafa ëpp solo lépp loo gis ci àdduna ndax dama waxoon ne teraanga bu fi mën di am ci àdduna yàlla da koo def ngir jaam ñi waaye nag doomu aadama bu fexee ba leneen di ko jëriñoo lu yàlla kon xamatul boppam te kon xam sa bopp mu ngi ci xam li la yàlla defal xam sa bopp mu ngi ci yëg la yàlla defal xam sa bopp mi ngi ci xàmmee ñi nga xamante ne bi ñoom ngay topp ngir am ngërëmul yàlla dama ne am na yoo xamante ne bi pour nga am ko doo dem ci alxuraan de pour nga am ko mm. doo wóor weeru koor pour nga am ko mm. du da ngay génn azaka pour am ko pour nga am ko du da ngay maanaam topp yi nga xamante ne moo fi ay yu ñuy wax ci ne mooy jaamu yàlla waaye am na yoo xam ne pour nga am ko da ngay liggéeyal góor yàlla wala nga liggéeyal ku yàlla gërëm sëriñ Fallou nag mm. kooku moom yaakaar naa ne leneen la kon bu dun yaa ànd moom mm-hmm. ànd naag ku jar àndal mm-hmm. ah ñun day bëgg nañ ko bëgg nañ ko te xam nañ am na lu ko yàlla kon duudu dañ ñaan ci barke laa ilaaha illallah nga ñaanal Sénégal ñaanal mhm. ñaanal kuy jullit yàlla baaxal mhm. ki wala baax yàlla rek ko ko xam kon ñaanal mhm. mi émission bii di ëttu dem ba génn Sénégal ba romb fépp am nañ ci yaakaar am ndaanaan dem ba wër àddina bi yépp duudu man de xaw ma ndax émission bi neex na ci yéenam déet waaye man tubaar tubaarkàlla macha allah man bég naa samay caméraman bég nañu te it tubaarkàlla macha allah. ñu ngi ci njeexitali tàggoo bi. waaw xanaa di la gërëm rek ngoy. ndeysaan. ndax yow sama soxna yoon yàlla nga. dëgg la ndeysaan. sam papaay sa ndijaay. waa looloo am de. sa yaay di sam bàjjan. waalaay ndeysaan. yal na yàlla guddal fan. amiin yaaka yaa rabbi di nuyu Ndeye Ngalla. Ndeye Ngalla mu lakkale mi. ak jëkkëram Sami. Sami Thioune sama rakk <laughs> ndeysaan. di la ñaanal yàlla sa émission bii. ëttu ndaanaan yi ëttu ndaanaan yii. dëgg la. yàlla na wër adduna. amiin yaa rabbi. yàlla nañ dund ba koy defee ji léegi bitim réew. ay waay Doudou Ndiaye amiin waay. barke sëñ Fallou dina am. day am incha allah. maa la ko wax de. amiin yaa bi xaw ma nag. ci man lay jógee nga ànd ak man dem. Eh. wala ci keneen lay jógee nga ànd ak moom dem. incha allah mais barke Sëñ Fallu. amiin ko enregistré ji bitim réew. amiin yaa ka yaa rabbi ci barke Seexul Xadim. amiin yaa ka yor lépp yàlla dara diisul ci moom. dëgg la. waaw ah, maa ngi koy ñaan ci barke Cheikh Mountakha. Mbacke mm-hmm. yàlla na fi yàgg Mbacke te wér. di ñaanal yàlla sëñ Bay Si Mansour. Mm-hmm. yàlla guddal fanam moom it. Mm-hmm. xalifa fa eh. xalifa Ñaseen. xalifa kër seex na Cheikh Sadd waa Ndiassane yal na yàlla guddal seen fan te yàlla bàyyil nu leen fi ba ci kanam ngoy daal gërëm naa la sant naa la xadim Pape macha allah looy tàggoo ah, man kañ kaasu Macky Sall bi laa xam ne nu xamu nu may def moom warga day war ci dara te man dara war a warga waragul ci dara bi war président day war ci dara mi ngi noonu kaas bi laa yor nii ah. te duudu ah daal day war ci dara nga kaasam boobu ngay naan maa koy wax Mamadou Gueye waaw jeex na directeur domaine. macha di ko wax ni ko. Euh, moom it xale bu baax la xale bu bëgg président de la république. wallaay Mamadou Gueye. bu Géejawaay. bu Géejawaay yal na yàlla guddal fanam moom it. Mm-hmm. gis na ni yaa ngi naan kaas bi. war ga dey lan. war ci dara. dina nga war léegi ci dara ci kàttanu yàlla. président sax dina bu la déggee léegi nga war ci dara. sama xel daal. kon tubaarkàlla macha allah président bu la déggee nga war ci dara loolu géwél bu am sañ-sañ ci giiram géwél bu am sañ-sañ ci ki muy àndal géwél boo xam ne leer na ko ni ka muy waxal bu waxeek moom mu dégg ko te déggal ko moom la ñu fekk si woon tey muy Doudou Ndiaye Mbengue di kenn ci président Macky sàll maanaam dañ ne bu jinax nee tëll dañ ñaan jinax a ngoog waaye jeneen jigéen dañ ñaan jeneen a ngoog président Macky Sall keneen ku mu am rek dañ ñaan keneen a waaye Doudou Ndiaye Mbengue mooy pee taalibir Serigne Fallou bi tubaarkàlla euh, doomi Balla Naar turandoo alaaj du Ndiaye Rose mi ñu duppee alaaj du Ndiaye Rose xaritu président Macky Sall di ñaanal yàlla nag sama turandoo du Ndiaye Rose amin waaw yàlla na xippee àjjana amin yaaka yàlla na ko yàlla xare ci àjjana yu kawee te yàlla tax ci barkeem lu bari def na ko ci man jërëjëf macha allah foofu la ñuy jaare émission bu mag bi ñu naan ëttu kër ndaanaan yi lii rek la leen waxoon fépp fu ndaanaan nekk rek émission bi dina ko fa fekk macha allah jàppanteeg moom ci émission ëttu kër ndaa ndaanaan yi ñu wan leen ko tegal leen ko ci télévision la 7TV télé bi ñuy nduru ba noppi di ñu dajale la télé qui nous ressemble et nous ressemble fa laay jaare nag anal sama borom kër bi ndaw bëlëb ndukumaan sande neeram fa xam ci dan yi ah, mi ma bàyyi waaw ñax na ko du bigeeg jogom ndaw ko du bigeeg as ndaw bokk sax bëlëb ñoo bokk benn maam macha allah mooy mbokkam tubaarkalla aas mi nga duppee aas mi ci kër gi kontaan nañu ñu ngi ñëw fii nag HLM fekk fi soxna du Njaay Mbeng muy nit ku baax taajal nañu añ bu baax ñu añ tegal nañu fruit yi def boisson yi ataay ji moo ko togg te moom sama jëkkër yoon yàlla la nangu su ma paree nag naa ko pañe <laughs> mu takk sama dënd bi dama koy pañe tey <laughs> dama koy pañe loolu lañ leen indi loon macha allah ci tukkan daanaa ni Cheikh Saad bu la ñu àndaloon ci caméra yi waaye Papa Diop la ñu àndaloon tubaarkàlla gis nga ni ñu def tubaarkàlla ànd ak man waaw mu ngi noonu di nuyu semu nag mi nga moo ne ci montage bi ñu ngi ciy nuyu bu baax di nuyu macha allah képp koo xam ne yaa nga ca télévision 7TV la télé qui nous rassemble. way kayaloo kayala nit ñi. maa njaay Fatima maa njaayee. dëgën samba buurub gaal cay ba nga yeeg. mayib njaay. way kayaloo mayib njaay kayala nit ñi. maa njaay Faatimeek maa njaay kaar waaw déggen samba buurub gaal cey mba nga yeeg mbayit njaay way kayala njaay jaata kayala ngit ni dooj ñaay mayit dooj ñaay kaar waaw maa jooru saala bi géej mbaag mayib njaay ki moo teleeg ñàkk yaayoog sama waaji sama waaji mbayib njaay yal na fekk mu matuwaay mayib njaay yaa matuwaay seyna bu juuf see deb ma tey laay way mayib njaay naa saal seedama tey laay way mayib njaay mayib njaay kii moo teele ñàkk yaay alburéy sa maam alburi biram penda njeeme samba buurub jaleen mayib njaay doo cuune mayib njaay way kayala oo kayala ngi nii sama waaji doo ñaay doo ñaay Béykar wu ma joor saalab yi geeg mbaa yaak cey mbangaat noon déglu leen déglooti leen ma wax ak yéen ndaanaan ni mi laa bëgg woo